This Al sunu baay joo xam ne yàgg na ci kër gi di taxaw taxawaayu sunu baay ci ñun muy sunu baay Badou Guèye moom itamit mu ngi fi teew eh, sunu koto Seexu Kamara jóge kër ma ñaan sunu mag la moom itam mu ngi fi teew te yàgg di ñëw ci kër gi yàgg ànd ak njabooti kër gi rakk sunu baay koo xam ne ci ñu jël benn nekk ñuy suñu taalibe baay yu njëkk bi muy samp bi muy am ay daara di am ay taalibe muy sunu baay di rakk sunu baay muy sunu baay eh, baabu njëgën dag joge kër Alsan Jàllo eh, Sërif Daawuda Haydara mu ngi fi nga xam ne lu bari la sëqalante ak sunu wayjur ci ay tiranga ak ay xam-xam yoo xam ne ñun sax xamuñu lépp ndax moom moo koy nettalil boppam te danañ ko bàyyi lit lim xam ci góor gi bu bu bu wax àggee ci moom moom dina ko wane wax ko waye momit kenn la ci doomi ndey yi doomi baay yi koo ne lu ne ci kër gi wala ne këram danañ ci jema boole ñu boole ko ñu tamit ci suñu yos ñi nga xamne ne joggé cioyen ñom baat si xam tidiane mu ne gis na ñëpp donte mënuñu tudd ñëpp partout daal ndeg waxtu bi tud gis na cioyen ñom ñombaatu yep, gis na wa kër ayib ka Basiiru ak magam Fallu Mbàkke fi lañ jangé ci kër gi alcorane ñom ñëpp ñu fi teew talibi lañ ci kër gi ci sunu papa Omar ñigen Eh, ak eh, waa kër gajji doomu sunu baay alaaji Mouhamed Mbay ku yàggoon ak sunu wayjur di jëflante sunu baay Ousmane Diallo ci cooyeen ak njabootam ñi ñëpp Seex Ahmed Tidiane moo ma lay moo may rafet lul danaa tudd danaa eh, tudd ñi nga xam ne ci seeni kër lañ jógee de seeni njaboot sunu nijaay alhaji Ibu Njaay ca kër Biraan Kanni rahimahullah njabootam fi da ay ustaas di ay faggukat yu fendeeku di ñu fonk seen i ak mbokk gi ñu leen di yëgal ne gis nañ seen seen seen teewaay ah su ko defee comme ni ma ko waxee tudd ñëpp daay jëfe sunu nijaay yi jógee njaay Musa Njaay sunu doomu nijaay yi ñoom ñëpp ñu fi gis nañ leen dëkk bu ne fi waa Senki Ndaraame gis nañ leen seen imam bi Daraame mu ngi fi gis nañ ñëpp waa kër Alhaaji Njuga waxoon naa seen imam bi amul benn dëkk bu ne fii ci ñombaato diggante fii ak Sokone fii ak Kaarang lu mooy ne ñëw nga bokk seeg ñun programme bi kon ci tudd ñëpp dafay xaw a jafee day xaw a jël time bu yàgg waaye ngeen baala ñoo xam ne ku ne ñëw rek gis nañ la bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alladi xalaqa alsamana walmakan وبث فيهما من المخلوقات وأمرهم بامتثال أمره واجتناب نقيه وأظهر فيهم فضله وعدله وهو الذي بيده مقادر الأمور ومصادرها وإليه يرجع الأمر كله وهو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد بقي نيجي يلا ديكو غرام مبام ميغا قامني موي بورام بيندي في nga xamne kep ku bok boole wante du sa ngoura du kon yàlla moomu nga xam ne moo ñu boole ci lislaam ci coobareem ak ngëneelam yàlla moomu la ñuy sant ñun ñëpp loolu mooy sababu daje bi ndax li laa xamal ne boolewut doo bokk abo jaa la ñu gën a dégg arab abo lahab moo ñu gën a dégg arab abo taalib moo ñu gën a gis ci yenent bi ay kéemaam ba salaay sallam demee ba xolu xolu deret xolu mbokk jàpp ko sëriñ ba nga koy wax fan yii mu bëgg a sowee baayam ci kaadaru mbokk yàlla def ko ne affaire bi nag du yëfi mbokk sama yëf la man yàlla innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha ndam yonent la yàlla wax loolu nag kon ku bokk ku ne gërëmal yàlla mi la boole ndax bu fekkoon bëgg nga bokk dana tax nga bokk kon Abu Taalib bokk te yàlla waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha yow du yaay indi gaay yi ci yoon wi man yàlla maa leen indi kon ñun ñëpp ñu bokk wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax li tax lépp lu ñu gis ba bokk Abu Lahab na ko te bokkut lu ñu gis ba gis na ko te bokkut lépp lu ñu gis ba bokk Abu gis na ko te bokkut kon yëf yi yëfi yàlla la moo ciy boole ku ko soob ñu ngi koy wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla moomu nga xam ne moo bind temps moo bind espace moo bind jamono moo bind ñu nekk ci jamono mu sotti ay mbindeefam ci biir ñaar yooyu noonu digal leen ay digle tere leen itam ay tere ci biir digle googu ak cere gi mu feeñal ci ngëneelam ci ñu ko nar a topp feeñal mandum ci ni ko nar a lankal ci moom rekk la nekk dogaluwaayu mbir yi ak amam ci moom itam ci la yépp di dellu ba yépp nekkaat ci loxoom comme ni mu ko tasaaree ko yàlla moomu moo yónni yonent bi alayhi salaatu ci njub ak diina joo xam ne mooy diina ay dëgg pour mu not mbooleem diine yépp donte naqadina xéeféer yi muy defi bu rëy boo xam ne bi ñuy tàmbali lislaam sallallahu alayhi wa moom kenn dong taxaw ne yàlla ma yónni ñu ne ko doo ko fi waxee سورين وقل لا إله إلا الله عن قولوا لا إله إلا الله طفله أبو الله ميكو جنة جيجة تدك نور عن موك موكو يطب وديكو سان نقير نان كي دفا دف كي لمي وقت كن دوكو طب يالا نكو سديني جي دانا نب موليم ديني دون دي نقدني هيفيل تبام كي وقلولو بو مكاك في سورين دي kon suñ démé ba tey jii mbooloo mu toll ni ñëpp di ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañuy sant yàlla xamné digéem ba matal nako suñu temu ren mun ngaa wax ne tekmil la ci bu daaw biñ tàmbali won ndaxte aaye boobu ñu doon jàngat ci suratul anam ñu koy tuddee constitution bu lislaam ñu koy tuddee delluwaayu lislaam yi nga xam ne lépp lu société soxla aaye boobu làmboo na ko ñenn ci borom xam-xam yi jël ko détaillé ko def ko fukki point jotoon nañu jàng ak yéen daaw juróom yi muy li njëkk ci nit mooy ñu jox ko yàlla mi ko fi indi fexe ba du ko bokkaale muy ashirk ñaareel ba tegu ci bi indi xëyul rek samp la fi ci kaw suuf si dafa am ñaar ñoo xam ne ci seen nekk ci ba nga ñëw fi te su ko neexoon indi la fi ci lu dul ñaar ñooñu ndax malaaka yi ñu gën a bari te kenn jurul kenn kon bi mu indi dafa am ñaar ñu mu tànn ñu fàggu ba indi la fi muy ñaari way jur moo doon deuxième point bi rafetal jëmee ci way jur ñetteeli point bi mooy daanaka day complété bële te mooy bu leen rey seeni doom comme ni mu nekkee woon aada ci arab yi ndax kat bu sa bàyyi defoon ni yow yow doo am doom ba koy rey kon nag yow itam bul rey sa doom ñeenteel bi mooy bu leen caaxaan bu len nak ndax kenn bëggut ñu ne la ci mom nga juddo kon bu len ci jur kenn légui rek bi ñuy waxtaan ci nek sëriñ bi ñen ci talibé yi ñu koy fatali sharif ak oustad sar ay hikma yu am njëriñ ñu ne doom mënut fay bayam dundam yépp ndax li gëna reey lo xane mëno ko fay sa bay moy mu jur la nangu ne la jur parce que sa yaay moom kenn werantewul ne moo la jur waaye kere ba nga ganee àddina bu fekkoon sa baay daa taxaw ne juruma ko danga am gàcce sa yaay am gàcce seen famille am gàcce te du dëñ mukk kenn mënu ko dindi même bu du dëgg it gàcce googu dana la topp kon rafetal jëmee ci ki la setal noonu ba nga mën a set loolu amut fay ñetteelu point bi juróomeel bi mooy bu leen rey bakkan ta yalla mo bëgg adina dox ba tax mu ya bakkan andi ko fi kon kenn bu mu fexé adina bi kër ya pour mu dox yow nga koy arrêté ta yalla naru arrêté kon bu len ray bakkan juromi tomb yoy lañ jangon ci conférence daw ren mu desoon juromi tomb waye toujours li ñuy dal moy taabi day jeex ba paré ñu bëgg ñu wax <laughs> ta dégg naa sax euh, communiqué bi ñu defoon ci rajo bi ñu ne conférence bi dañ koy def ci diineeg jamono wante li ñuy wax yëpp diineeg jamono la daanaka boo yeboo ne diineeg jamono mooy tànku ndeyjoor ak tànku ñu benn mënu cee dem bàyyi bi ci des bu la neexee nga ne diineeg jamono roho ak jëmm la bu la neexee nga ne diineeg jamono zahir baatin la benn mënu cee dem wacci morom ma point bi ñuy tàmbalee mooy alali jirim alali jirim nag xam naa ku koy jàngale Saalum da dem ca tool ya rek <laughs> fii moom bàyyi fi alal ju ñuy wax bëriwut waaye jirim nag ñaare mu doon na fi tool yombut de jirim doon fi tool yombut de parce que tool yi moom balaa nga am màgg fekk na tool yi doon nañ te kat jirim yee moom tool yi kenn ku ne la sa bàyyi moomoon ci suuf bu faatoo am nga ci cër lu mu tuuti tuuti waaye nag miraasam Saalum moom tool yi tool yi caat yi jot yombut de yal nañu yàlla xetali boppam <laughs> ñu bàyyi xel ne caat yi ci tool yi bàyyi yi lañ bokk waaw ci toolu bàyyi yi lañ bokk caat yi même bu ñu fekkee mënaguñoo bay ci miraasam bàyyi ci tool yi lañ bokk tey bëggee ree nag amoon na la gaa def <laughs> tey ci jaad yi nga bokk rek xaw ma la gaa yi def nag nañ yàlla xetali mu ngi noonu alquran dafa wax ne inna alladina yakuluna amwala alyatama zulman innama yakuluna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira ngeen yëg ne ñii lekk alal jirim te bu ñu waxee ak jirim mooy ko bàyyam génn àddina te matagul mu kallaf ko la ñu tuddee jirim kooku alquran nee na ñiy lekk seeni alal nañ yëg ne ki tooñ nañ yëg ne ñu ngi lekk ci seeni biir safara ndax safara la ñuy dugg ëllëg parce que maaye óolu ile yi arab daf koy tuddee dara nekk gut safara waaye li ngay lekk safara la la jëmee mu far tuddee ko safara na innama yaquluuna fi butunihim naara nga ne safara de yàlla neexut a lekk mu ne parce que wa sa yaslawna saira fa la ñuy dugg rek moo tax ma far la ko yàkkal ne foo nga jëm kon alal jirim société l'islam daf ko protéger ba kenn war a koo jël ci lu dul yoon loolu moo doon sixième point bi ci conférence su daaw bi benn borom xam-xam neena bindal na ñeent fukki kaamil lu ko ëpp wala ñeent fukk ak benn ci ay kaamil bind na ko waxtu wu nekk suy bind dana gis weñ muy naan ci xaraf yi muy bind ba mu des maalal yatiim mosta gis bind weñ ñëw naan ci daa jiñ bindee maalal yetiim daa jiñ ko bindee sax weñ di ci nangoo naan ndax moytu xalali jirim ndem nag weñ moo xàgg ci moytu daa jiñ bindee maalal yetiim ba nanguwu koo naan kon xam nga ne alal alal jirim lu garaaw a garaaw te mu ñuy foyee lu bari parce que li tax euh, nit ku ñuul ni muy liggéeyee dafa doy waar rakk nga jarbaat nga xarit nga rek yow yaa ci biir di liggéey léegi nag soo ko defee kenn xamul lu mu moom yow mi nga xam ne yaa moomoon yëf yi nga jege koo fi léegi <laughs> kenn ay ñëw rek ne man maay mag ma itam toog fa lekk xalalu gune yi tasaare li jaadu woon mooy alal lu mu bëri bëri ñu xam kii lii la moom kii lii la moom kii lii la moom waaye nit soo dëkkee di ko liggéey liggéeyloo guddeeg bëccëg te amul dara soo dexee bàyyi ko fi li nga fi bàyyi lay jël parce que amul dara moo tax dañu war de organiser wu xam ne kii lii la ci moom kii lii la ci moom kii lii la ci bu ñuy boolante nag ñu boolante boolante kenn di ko tere ay bokk waaye nag boolante boolante ba ki ñu boole woon jël kenn kam te moom ñi fi bàyyi managuñ ñu lekk li ma moom muy alali jirim loolu islam nangu ko benn borom xam benn waay ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko di ko tawatal xol bu wow mu ne ko soo bëggee sa xol bi nooy demal nga raay bopp jirim parce que li tax mooy raay bopp jirim dana la fàttali dee fàttali dee dana la fàttali yàlla ba fàttali ko yàlla sa xel bi tooy ndax kii bàyyam dem bàyyam wut boppam kon yàlla mu yóbbu bàyyam xam nga ne bis dana jot dana la fi jële moo tax dafa njëkk wax ci hadis ne tere naa leen ngeen siyaara ji bàmmel ba mu yàgg mu ne ala fasuruuxa mu ne déet léegi bàyyi leen tere gi ngeen dem dem siyaare ji bammel mu ne ndax tax dana la fàttali dee kon amari tere wax na itam ne képp ku yar jirim yomal qiyaam man ak yow ñooy tolloo daraja mu yëkkati ñaari baaraam yi mu ne kaxaaxa tey ni comme ñaari baaraam yi niñ mel man ak yow noonu la ñuy dëkkee xajana ci a ci jirim bi nga yar ba toppatoo ko ba mel ni sa doom yi mel wala ni nga bëggoon sa doom yi mel kon ñu bàyyi ci xel euh, ñetteelu ña euh, mën nga wax juróom ñaareelu tomb bi wala juróom benneelu tomb bi mooy matal ak natt xam nga ne kilifa diine yi tey affaire li ñuy natt ne nañ leen bokk leen ci parce que yéen kilifa diine ngeen li ñuy peese ñoom bokkuñu ci parce que ñoom ne nañ kilifa diine lañu te ñoom ñëpp ñu ngay jàng ci alquran wa awful kayla wal misaana bil qisti léegi nag su fekkee ñoom ñëpp jàng nañ wa awful kayla wal misaana bil qisti ñu ne leen yéen kilifa yi diine ngeen dem leen ci jàkka ja ngeen julli jiite nit ñi jàng alquran boo jàngee alquran mu ne la awful kayla wal misaana bil qisti te yow moo marché bi nattuloo mënoo joxe prix yi nan ngay def ak aaye bi kon est bii dañ koy génne ci sa waru gar wala da ngay nangu boog ñu génne ko ci sa waru gar nga moomale ko boog ñu yor état du dara lu mooy lu mënta nekk la fokk ñu xam ne diine ji yàlla moo ko fi wàccee yàlla bind suuf si moo bind asamaan si moo bind jamono wàccee fi ñi nekk ci jamono am lu mu leen sant lim ñu sant noonu nag benn mënu cee dem wacci moroma li ma la wax léegi mooy roox jëm jëmm mënuñu tàqale diina ak àddina noonu lañ mel mënuñu tàqale ko bu ci waxtu woo xamee ne benn bi nga tànn rek sa sa àddina mënut a jag soo tànnee àddina kese yow sa àddina mënut jag parce que àddina àddina kese mënut a jagal àddina li ko wéer mooy waxtu wuñ tabaxee àddina ci àddinaay kese rek ci daanu la jëm parce que amul rooxu eta yi fi taxal won yeb kera keroog sallallahu alayhi wasallam di gas xandax nga xamne bo boobu Makka ñoko attaquer ci nek fukki junne soldaar fekk ci dekk bi ñu leen jappale ñaari junne te julli ja nga nek ñetti junne wala ñent ñu ne nañ gas pax warale ko medina pour sawé suñ bop bañu gas pax mi bam yag ñaag ci ben doj bokane kenn mënu lu ko dara ñu woo yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko doj wii de yàq na suñ jumtukaay yépp kenn mënu koo toj mu daldi jël pikk bi boobu mu ngi woor ñetti fan yoo xam ne dogut biiram bi mu ngi takk ay xeer ndax dëgërloo ko mu jël pikk bi dugg ci biir kàmb gi bi mu dóoree benn yoon boo xaajee doj ñetti xaaj benn bi mokk na mu ne allahu akbar mu mel ni benn làmp lañ taal ci biir xunt bi mu ne saaba yi ne allah akbar mu def ko ñetti yoon la dóor doji mokk rub ñetti làmp yi benn bu dóoree làmp tàkk mu ne yàlla day war na ma sama xeet danañ xilif kaysar danañ xilif kitra danañ xilif rom mu mel ni yàlla defal na ko àddina benn écran boo xam ne xool na li war a xew ba ci fi mu toog nii sallallahu alayhi ma ngi jàkkaarloo ak bëtam mu ne ko yàlla leemal na ma àddina fu ne ma ne ma sa xeet seen nguur dana naafiq yi ne kii ragal ay noonam bay gas pax di ko waral dëkk bi ndax ragal ay noonam ñu ñamut a génn dem toilette ndax ragal suñu mu naan dañ moom àddina xam ngeen ne maa waadana allahu wa rasuluhu illa yàlla ak yonent bi digul ñu lu naxe xoolal xoolal kàddu gu rek est ce que boobu bi sa di wax ne boobu état yi ëpp àddina doole mooy nguur Kisra ak Rome l'islam yilif na ko ba mu jeex takk mu nekk ci biiram kon bépp mbaax gu taxaw wala alal ju taxaw te taxawut ci diine rek su la yeboo taxaw ne lii lu yàqu la parce que roxu gi ko war a protéger nekk fa kon dañu bëgg a wane rek ne àddina du benn tànk moo yóbbu fokk ñaari dox doxin bi mun a rafet su benn manqué rek kenn ku ne dana yëg ne man li ma yore nii du noflaay parce que addina ju diine nekkul mbugal rek la waaye diine ju amul àddina it rox bu def dara la dundut deewut ah dundut deewut rox gu amut diine ju amut addina moo tax waykat bari wax ne ma ahsana diine wa dunia isa jtamaa wa aqba al kufru wal iflasu bi rajuli mu ne gisuma lu gën a rafet àddina bu ànd ak diine parce que ñaari tànk yu complété lu ñu def xam nga ko te mën nga ko def borom jamaal rek lay àndal parce que li tax li mu war def xam nako tam na lum ko defé su fekké nag li nga war a def xam nga ko tam xamoo loo ko defee ah sa dënd bi rek la ñoo xam ne bëgg na lu baax waye ci biti kenn du xam ndax yow bëgg nga lu baax parce que doko mëna def kon fexé ba respecté nat gi ba kenn du ala li moromam ñëpp mën a jot ci nat gi mu yam lolé itam responsabilité la bu mbolam julit wara a teg ci seen pénc muy الكيل والوزن ما تجي القران ني وخني ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون من مغل ني يالنا نيغا خامني سون ديمي باي نات سين بوب دنج كوي ماتال تا بو ني ناتال كينن واني لا موي نجوغاني نجوغاني دم دم كاري لومو يي خامنا نيو بوكو لي لي دنج ام نياري بوت xam naa ke a daa dawut dem katuluma rek moom gàmmokat la ci gàmmo ga lay raasee démb <laughs> waaye bu doon njogaan moom dana xéemee <laughs> dañ yor ñaari pot benn bi ñu rukk ko ba mu ba mu wàcci beneen bi ñu rukk ko mu dugg waaw suñuy natt léegi li bu ñu rukk mu wàcc la ñuy nattalee seen bopp suñ lay nattal bi ñu rukk mu yéeg moom lañ lay nattal te dañ koy fàdd mu buñ ko duyee ba mu fees ñu mel ni ku koy sotti fàdd ko la ca tegoo xoon daal di sotteeku suñuy natal seen bopp jàpp seen baaraam yi dolli ko ci pot bi téye ko natal seen bopp soo demee ci tafsir bi bi ko bàyyi di jàngale mu ne aji natt junne wala aji peese yàlla nga koy fàttali boppam ci biir jëfam mu ne ndax foo fekk aji natt wala aji peese nii lay téye ñaari loxoom yi mu ne ñaar yi mooy xal ko bi asa gi bii mooy alif gi ñaar yi ñooy laam-laam alif laam-laam xasa xeer maanaam sa loxo baa ngi la naan allah ragalal yàlla allah ragalal yàlla mu ne waxtu way peese wala ngay natt rek sa ñaari loxo yi nga tàllal mu ngi naan ragalal yàlla ragalal yàlla loolu ngay wax pat boo natt rek bi nga sotti sa loxo yaa ngi la naan ragalal yàlla mu am benn waay boo xam ne dafa nekk di jaay ba toll ci sukuraat ñu ñëw di ko sabbaati laa ilaha illallah yi ñu wax ko laa ilaha illallah ba tey mënut wax laa ilaha illallah xam nga lan lay wax jabalaani minan naari ñaari ñaari ñaari ñaari doji safara yi buñ ko waxee waxal laa ilaha illallah mu ne ñaari doji safara yi laa ilaha illallah mu ne ñaari doji safara yi lan mooy ñaari doji safara yi mooy yim daan peese poids bi mu daan peese moo baaxut da daan lekkaala lu ñi moo tax mënta wax laa ilaha illallah keneen ki moom ñu naan ko waxal laa illah mu ne xasmatun bi falsi moom daan jaay sumbu <laughs> mu ne bay faatu ba ko waxal laa ilaha illallah mu ne takk bu rëy takk bu rëy sumb si mu daan jaay takk bi takk bu rëy la mën a wax mënatu la wax laa ilaha illallah kon l'islam suñ ko waxee ne ko yow jàkka ja rek nga moom sa yoon nekkul ci li ñuy jaay ak li ñuy jënd alquran yàqu na sunna yàqu na parce que yi mu mënuñ koo bàyyi parce que ay alxuraan laa ki sunna léegi ñu ne ñu yéen rëdd leen jàkke yi jàng leen alxuraan waaye état bi moom ni muy doxee sa yoon nekkut ci ku fi ñëw jël ay milliards def ci poosam def ci poos mbokkam def ci poos xaritam dem ñu continuer di ko fay ñeneen ñëwaat ñu ne ñu yéen seen yoon nekkut ci yéen nit yi diine ngeen <laughs> ay naxe rek la booba la ñu rey biñ ñu rey yàq réew mi rek ci la ñuy wax ne yéen nitu diine ngeen ah dem nañ ca jàkka ja bu ñuy sàcc ñun bu si yéen yoon nekk léegi nag su ko defee koo xam ne yow yaa waroon di gërëm nit ñi yow lañuy taxaw di la gërëm si naa war na xataab dafa am bis muy doxante biir Madina ba mu yàgg mu fekk kuy jaay mu dugal loxoom ci saako bi biir bi tooy mu ne ko waaw lii nag mu ne ko yàlla jee taw mu tooy mu ne ko lu tax nga def ko ci biit ku ñëw xam ne dafa tooy buy jann mu jann bu jann mu bàyyi waaye nga jël ko def ko ci biit yow dañuy wurit te ku ñu wurit bokkuloo ci ñun parce que lii tey ñun suñ diine ji ñun lii bokkul ci parce que ñun jàkk ji la ñuy wax ne nañu yéen ah, di kilifa aada ngeen kilifa diine ngeen ñun aada ji bu lañu seen ne rek bis ci bis yi dafa génn guddi di di rondu moo doon chef d'état bi waaye daf daan toog moom yàgg mu masque dugg ci biir Medina di doxantu muy doxantu di doxantu di doxantu ba fekk benn mbooloo moo xam ne ñu ngi nelaw Omar ibn Khattab ne comme moom mooy chef d'état moom lañ dénk sécurité réew mi te ñii ñu ngi tëral seen alal di nelaw su leen fi bàyyee nit mën na fi ñëw jël alal ji ko mu toog fa di leen garder en tant que chef d'état ba ba fajar jot mu ne leen allah allah bañ yeewu mu doog a dem julli ndax sàmm jàpp na ne alal jooju comme moom lañ def président moo war a sàmm alal réew mi kon buñ sàccee alal ji moom lañ koy laaj yomal xiyaam mu toog fa di leen garde est-ce que kii da ko wax ne ko demal sa jàkk ñi nga julli jàng alxuraan sa yoon nekkul ci réew mi kilifa diine ngi mu mu nekk parce que li tax mooy kenn ma ngi dañ daan wax ne neen ak biitam neen buñ fanaanee ci néeg boo naa fa ndabal neen nga fay fekk ndabal neen <laughs> waaye waaye jàkka ja itam bu fekkee kenn xañut kenn reerut kenn ndékkiwul jàkka ja buñ noddee du xumb de <laughs> waaw daan nañ tooñee sama maam ne tisbaar mooy gannaaw xañ bu boo fekk xañut du julli ji tisbaar waaye li tax mooy ku ku yaakaar naa ni su jullit tisbaar du rafet kon ñaari ñi mënuñoo séparé wu addina foog mu ànd ak diine te li nga lekk l'islam daf la ko contrôler ko su fekkee l'islam li nga lekk nag daf ko contrôler yow nga ne sa yoon nekkul ci li addina di doxee kon li nga lekk nu ci sa yoon di nekkee mënoo koo tëral kon ñetteelu tomb bi wala juróom-ñaareelu tomb bi juróom-ñetteelu tomb bi mooy mandu ci wàllu wax muy lu suñ jamono laaj léegi alxuraan daf ne woon wax ne wa isa qultum fa'dilu walaw kana da qurba mu ne bu ngeen dee wax na ngeen mandu donte seen jege ñaareel waa ji lu mu doodoo sa mbokk lu mu doodoo sa baay lu mu doodoo sa yaay lu mu doodoo sa sëriñ bu ko seedeel mukk loo xam ne te kanam yàlla bu la laajee doo ko mën a firndeel walaw kaana daa qurba doonte seen jege ñaale la yéen bi salaay salaam <clears throat> laaj nañ ko lu ëpp luy dugal nit safara mu ne ragal yàlla lu do lu ëpp luy dugal nit ajana mu ne ragal yàlla ak rafet jikko ñu ne ko lan moo ëpp luy dugal nit safara mu ne al ajwafaani ñaari mbaq yi ñu ne ko lan mooy ñaari mbàq yi mu ne alfamm wal farju seen làmmeñ ak seen pëy ñaar yi moo ëpp lu muy dugg nañ safara wax na ne ku ma sàmmal ñaar yi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma la ajana kon jarul dem ci sa sëriñ yonent bi jox na la garante nee na ba ma sàmmalee sa ñaar yi sa pëy sa biir sa pëy doo ko jëfandikoo fu la yàlla tere sa biir doo ci dugal lu la yàlla tere yonent nee na ku ma warlul ñaar yi ma la ajana kon xam nga ne ñaar yooyu danse mu ngi ci parce que bu ci danse ne surtout nekkutoon du ci teg loolu mu ci teg tirmis yi ñett yi na xadis boobu jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne Muaaz ibn Jabal dafa ñëw ci yonent bi alayhi ne ko man ndax ñun suñ làmmiñ ñi li ñuy wax dañu ko jàppee xam naa mooy léegi wax sa xelaat rek ak revue de presse ñun foog nañ ne li ñuy wax ni lañ koy wax ci ngelaw li rek mu jàll amul benn problème ndax lu ñuy wax suñ làmmee yi danañ ñu ko jàppee salaay salaam ne ko aka neexoon sa yaay du la jur sa kilat ko umm ka ndax xam na luy dugal nit safara lu dul làmmeñam moom mu ngi doon laaj ndax suñ làmmeñ yi danañu dugal safara mu wax ko contraire mu ne ko lépp lu leen di dugal safara seen làmmeñ yi lay bàyyi ko wa hal yakubbu naasa fi naari ala manaqirihim ila hasaidu alsinatihim ma dégg sëriñ bi di ci jàngale hikma fan yi mu ne lii xañe ijaaba yëpp ci gémmañ lay bàyyi koy si ndaara xam ne am nañ problème waaw mu ne lii xañe ijaaba yëpp ci gémmiñ lay bàyyi koy parce que gémmiñ mooy mahallu du'a kon bu du'a ñakkee nangu rek gémmañ nga la ñuy fexe yàq fexe ba lekk loola lu xaraam te lekk loola lu xaraam wax loola lu xaraam léegi su ko defee yàlla daf ñu yonent daf ñu jàngal ci hadis ne da digle lu bon da digle lu baax di tere lu bon wala boog man yàlla ma gën ma jël ñi gën a yées ci yéen yilif leen di leen duma seen ñu baax ñi di ñaan man yàlla du ma leen nangul kon bokk na ci dimbali ba suñuy làmme ñu ciy wax lu dëppoog li yàlla gërëm di ci digle li dëppoog li yàlla gërëm yonent bi salaay bi waxe saabu bobu lolou taxna ñu daan sammu seen lamme yi ba sayyidna Abu Bakrin daf daan jël ben xeer duggal ko ci gemmiñ gi pour que bu bëgge wax lu ko intéressé pour mu génnee xeer yi moy tax mu wax pour que bala mo dara lu koy intéressé lay doon pour mu doog a xeer yi mëna wax ndax baña wax bis ci bis yi do ko fekk muy ngeub lamme yi mom Abu Bakrin diko mbugal Omar ibn Xataab ne ko Abubakar defal ndànk li xëpp na mu ne ko daf ma nar a dugal sawara en tant que Abubakar Siddiq radiyallahu anhu dafa am bis si naa Fatima bint Rasul sallallahu alayhi wa mu toog ak yonent bi sallallahu am benn jigéen bu sol benn colaay dal di romb Fatima wax ci colaay gi comme sa boote lim sol sallallahu alayhi wa sallam fii la téye ci pour ji ne ko xaxtandekul mu xaxtandeku mu tëb li muy lumbu deret bu ñuul mu ne ko soo ko wanoon kenn mënu laa dem safara xam nga lu tax Fatima am loolu Fatima soow la dafa weex tàll bu ci <laughs> bu ci lu ñuul duggee day teel a feeñ loolu moo tax loolu génn ci moom waaye kum ne tux cigarette du du ko xasewate <laughs> saaba saaba yi dañ daan toog ba mu yàgg ñu ne am na kuy jëw de parce que dañoo topp yàlla ba nature bi ci boppam dafa topp yàlla nature bi sax boo ci dugalee lu ci bokk nature bi daf koy wane dañ daan toog ba mu yàgg ñu ne am na kuy jëw parce que xet gii ñiy lekk nit ñoom la xet gii mooy génn ndax li tax mooy jëw yéen bi alxuraan daf ñoo wax ne dafa mel ni que fekk sa mbokk nga tiim ko di ko lekk moo tax ñoom seen jaww ju set jooju xàggoon nañ ci booy jëw comme baat bi ci zahir la ñoom yàlla def leen kastu ba xet ak jëw gi day mel ni ni ñu ko jàngee ci bi ñoom noonu lañ koy centré seen bakkan yi ñun nag suñu air bi moo yàqu wax naa ko léegi bakkan bu miin a tux sigaret du ko xesewati léegi su fekkee jëw gi dëkk nañ ci yàggee xet gi duutu ñu àkkati <laughs> fekk na duut dafa baax waaye fekk ngelaw li ñuy liñ société bi moom lañ yàq bu yàggee yàggee yàgg te dara du ko defeeraat nag lu mooy delluwaat ci lislaam suñ gëmee yàlla ragal ko yàlla mooy ubbi barke asamaan su ubbee barke asamaan nag xamal ne moom ni mu ubbee yëf yi noonu lay nekkee surveillance toog di la xool ah dépasse jëfe woon na fi de tey dépasse yomb na xam-xam jëfe woon na fi de tey xam-xam yomb na est-ce que nag xam-xam boobu ak dépasse bu yomb bi dana tegu fi yàlla bëgg ba duñ ko wàccam ndéeg waxtu wuñ tegoo ci li ko yàlla bëgg rek xamal ne ñaari yëpp yàlla garanti na ko alal dana bëri dañu am jàmm xam-xam dana dox dañu am jàmm waaye waxtu nee ma ñu ne ah ñun kat dañ daan ngénte laax yi tëñu waaye léegi nag mën nañoo jënd ñaari xar mën nañoo am galenaa mën nañoo am nangam kon suñ bàyyi daf daan bañ tëgg daf daan bañ fecci léegi géwél yaa ngi ñu wër foog ñu fecci géwél yaa ngi ñu wër foog ñu tëgg Ah, ah suñu xarit yi itam am na ci ñoo xam ne dañu jëfandikoo lu dul noonu te dikk nañ foog ñu jëfandikoo ko ñu commencé fo rek xamal ne poson dugg na waxtu waxtu waxtu war sax ñëwee rek nag bakk nañ ci gannaaw di ñëw waxtu war sax ñëwee bakk nañ ci gannaaw di ñëw te te force lay wax ne dana dugg te su xasee dugg rek liñ tabaxoon yëpp mu yàq ko danga nga toog dégg saago xam ne yow yaroo nga ci dëkk bi ba génn mosoo dégg saago nga toog ci mbedd mi dégg ko nga xam ne ah lawoon na ngaa xoon ni de mosoo gis jigéen ji sol lii ci dëkk bi nga toogam yàgg gis nga koy gis te seeneetut kenn am na lu fi kenn ñi mënutoon a organiser ñu toog ba mu yàgg xam ko ñemee organiser te seenewut kenn suba yëf yaa ngay yàqu te yëguñ ko parce que secret bi koy sàmm yàq nañ ko ba pare suy naa ma di nu xataab daf naan arab yi كنا أذلاء فأعظنا الله بالإسلام فإذا ابتقينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله دفنون نيون عربي نيو طرق لنيون تكو نيون دارا عرب أفان الإسلام كن قمون غورك عرب تكو سوف منوا يالا مو نيو ترالي الإسلام يالا مو نيو ترالي الإسلام منو سنفي باي الإسلام نك بغو هدي تيرانغا فنين فرو الإسلام yalla mi ngi terele won l'islam mo ñuy toroxalal boppam loolu mo dal arab yi tay arab ji yépp ñom lako yalla jox seen réew yépp ñom frontière te mënu ñu am ben cadre bu dëgër xolal imaginer tay Palestine bi kenn mën ta wax armée ma ngi ni taxaw muy xex ak Israël juroom ñaari wër juroom ñaari wër mënu ñu leen dara ñom nit ñi lañ topu di ray rek way ñi da xex ak ñom sax gis ñu imaginal tey su fekkoon li yàlla am ci jullit am ko ci pétrole am ko ci gaas am ko ci or te yu réew yooyu yëpp ñoo bokk frontière ñu yàccaaral ba Israël di def lii Palestine jullit yi toog di xoole mooy la ñu yàlla waxoon la ñu Omar ñu Xattaab waxoon l'islam a ñu teraloon bu ñu sàgganee l'islam yàlla mi ñu teraloon ngar l'islam moom moo ñuy toroxalal boppam tey benn dara mënuñ ko ci toog di seetaan rek lii nag mooy bu war sax dee xuubeeg oto yi fi daanul gaare di fi gaare xam-xam bu ñu fi daanul wax di fi wax jàpp leen na yàlla moom ñuy xool ndax fan lañ jëm ak lim ñu andil ndax dañuy sant mu dolli bu ñu weddee mu mbugalal ñu boppam suñuy weddi rek yi yëpp di gént waxtu ñu fayee lislaam rek yi gént yal nañu yàlla téyeeloo njub ak mag ñi wa mu ngi nonu ah, xam nga teug mu ne mu ci neex yo fecc kat bi nga arrêté bala ñi lay taccu di arrêté <laughs> waaye boy fecc ba gisoto kenn ku la taccu sa fecc mi dootu safati <laughs> te itam mu ngi bëgg guddi kon ah, ñu ngi eh, gërëm mm, kàddu yi yëpp mbooloo mi parce que njagaaneen légui dafa naqadee conférence parce que ñi la war ñëpp ay mu lañ bokk tak foo xane ñangam papa Guèye <laughs> muy njàng ci daara ji bu fekkee moo raw ñi fi nekk ñëpp ci lay jàng <laughs> waaye bu fekkee am na ku ko raw ku ñëw rek moom li ma wax dootaa ko déggati <laughs> noonu la daan jàngee bu ñi fi nekk daal moo raw ci kaw jàng waaye fekkee ñi ko ñëw nañ nag moom du daa dégg li mu ñu ngi sant yàlla bu baax su ko defee fii neexatu da jàngee sama bàyyi Cheikh Omar mi nekk fi di tafsir alquran yore daara ji wax deug yalla li bisam la moko mom way aji mur neena ñu gungé len ba ci kanam hmm, lo rek la way li ñom ñoo ñu ko dàq Moustapha moom di doom mom ma dakk parce que ñom ñom ma ëpp jotté gëstu fi ñëwee man fi ñëwee taluma ma joti gëstu yani li mo mok rek la len mëna jox waye yenn uh, jot yi amatu mako ndax ku yenu yenu waaw ku yenu yenu ñu ngi jégalu ñep uh, lu ci ñub mbaaxu yalla la lu ci dëng manki nit ñi la xam ne yëpp junji junji mag ñi rek la parce que léeg ñu ne dégg naa léegi ñu ne nañ waxal kër bay mag waaye man maay njagaaneen parce que man maay xaali njagaan su ma waxee waa kër bay mag wax ne waa kër ah, Omar njagaan wax nañ moo tax gars yi buñ ne njegeen Cheikh Omar ma ne déet njegeen njegeen maam xaali <laughs> parce que li yëpp Cheikh Omar ñaan gu nangu la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def noonu ana daawatu abi ibrahim man maay sama ñaan ak baay ga te waxoon naa leen te conférence ba leen ne leen su taxu doon ak sama tooma ancien combattant ngeen di am te ancien combattant xam ngeen ne du jur ñu mel nii <laughs> kon kon nag sama maam bu leen ko di fàtte yal na ko yàlla defal tawfiq ak mbooleem magi lislaam ñi mu bokkaloon réew mi yëpp ñu ngi di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ko ba bàyyee ko am sookoon fu li ma li ma fàttale ko man doo gis juma balaa nga xagee alaaji Tayib Diallo juma xaw ma ko fi woon boo bayee ko soo ko ne alaaji amad dem balaa nga àggee ci balaa nga àggee may dem bay marqué diggante bi daanoon fi gis jumaa léegi dëkk yëpp am nañ jumaa te jumaa nag xam-xam moo koy léeg-léeg man mii maa ngi koy jànkuwante ko gis léeg-léeg nit day yónnee ndaw ne ma xabal ma sakkale parce que suñ jumaa yi xamuñ ko ko jiite tey ma xewal fa ndaw taal bi yaa ngi nii ma xewal ne ko ni ko dëkk sàngam demal jiite fa jumaa ndax amuñ ko fa jàng léeg-léeg jumaa sax far toog parce que day ñëw ci heure boo xam ne xale yi duñ mën a dem ma ne ko naaju tàng na léegi mënuñoo dem ñu noonu ñu far julli tusubaar loolu moom du lu ma dégg lu ma gis la kon nag dëkk yëpp buñ defee jumaa te organiser wuñ daara ca peggam fexe jël seen xalal ji nga xam ne moom lañuy dundee ci dëkk bi fexe am xale yu fay jàng yokkaan ci dëkk ba lañ dëkk du yàgg-yàgg yéen ñëpp dinañ toog fii jumaa kenn du ko jiite jumaa dëkk boo xam ne xam jumaa jumaa jot kenn du ko jiite parce que kenn du mën a jàng xutba ba wala mu taxaw da ko jiit kon nag dëkk bu tabaxaw jumaa doyut ñu wëlbateku force la ñu tabax ba noonu madaarisa xablal masaajid ak di si yonent bi ay salaatu salaam ma waxoon yonent bi dafa jàngale woon lépp balaa taxawal jumaa balaa taxawal état islamique xam-xam la jëkk jàngale ba nit ñi xam kon nañu bàyyi xel ne jumaa yu bari yi ñuy def la ca tegu mooy xamul benn dëkk bu amul siyaare siyaare bu nekk xam-xama koy lal ndax soxla nañ fa kaamil soxla nañ fa ku jàng xan mo soxla nañ fa def waxtaan dëkk yëpp soxla nañ ko te amul dëkk dëkk bu amul siyaare dëkk nag bu amee siyaare ñu war faa jàng ay kaamil war faa defal conférence war faa wax diine ñu xam juma am ko war a jiite hittihu njàng gàcce dana leen dab yàgg yàgg gàcce dana leen dab parce que luñ bëgg a def ci dëkk bi danañ xàbbi ku ko def te nag ay góor yoo xam sikkim xam jabar xam tool dabay guddeeg bëccëg seen jumaa ja ñu xàbbi leen koo jiiteel xàbbi ku leen koo defal bu ñu waxuti itam xam nañ gàcce gi war sikkim waaw su ñu waxu dara am nañ gàcce gi war sikkim ndax ku fa toog itam saaf si xam nga ne la nga war a taxawee taxawee ko kon nag message bu ñu jox ñëpp ne leen nañu góorgóorlu ci xale yi jàngal leen dara dëkk bu nekk nañu organiser woo xam ne bu fi imaam bi nekkut xale bi war na mën a jiite ñu organiser ko léegi mën a nekk ñu wut sax ustaas boo leen jàngal dara ba ñu xaw a yeew su imaam bi newul ba may ganaam mag mi fi nekk bu ngi béy jaaw da jiite léeg-léeg du man léeg-léeg ay tànkam bañ te xale yi kenn man taxawu jumaa ji benn xale loolu da di am ci dëkk yi fii maara day taay dëkk boo jéggi ba ca dem ka fay mag la moo xam daanaka mu ngi béy jaaw ba wax tàll tànkam da bañ mu ngi ma marot xale yi ko war kenn mënu ko ca wutu boobu man naa ngi gis muy te ma leen a wax nii man damay jànkuwanteeg moom kon nag moo tax ma wax ne na ngeen ko bàyyi xel nag bu baax a baax a baax dëkk bu dem bu ñu demee ñu jàngat parce que man dana bëri ñuy dikk ne ma xamal ma ku ma jiite suma jumaa ja tey kenn imaam ba nekk ko fa xamuñ ku ko jiite nañu bàyyi xel loolu wut imaam jàngal ña fa nekk te xale ba fa nekk formé ko ba buñ gisul imaam man koo jiite te ñun ñëpp am nañ jumaa da taxawal ay siyaara te xam-xama koy def lu xam-xam da def nag boo ko bëgg a hutal xam-xam balaa nga ut alal itam ndax alal man ca ñàkk ni jëm alal manta ñàkkee itam noonu la ñàkk xam-xam manta ñàkkee kon nag buñ jël financement yi rek mu doy la xam ne luñ mën ñu financé ko fa waaye financement wàllu diine bi manqué nañu bàyyi xel loolu loolu lañ doon joxe message dañu bal xàq ñëpp di gërëm ñëpp mbooloo yi fi bàyyeekoo ñu ngi sant ñëpp ndax yéenay wetteelu sa Ahmed Tidiane ak sa sa sëñ sëñ Ousmane ñun nekkuñu fi bu ñu fi dikkee balaa ñu fay dikkaat mën naa am siyaare jot kon lépp lu fi nekk yéen la balaa ñoo ñëw sax fekk ne lépp ngeen def koo pare kon nag ñee ñaanal mboolem ñi fi dëkk li wër njëgaaneen yépp ñu ngi leen di ñaanal moo xam kër gaj ji la moo xam cooyeen la moo xam di ko yow yëpp man na ma wax toujours may leen man xaw ma fi fii juróom benn at laa fi bàyyee ko waaye mosuma fi xam weer ba fi bàyyee ko juróom dem ca àll bi jàng ba léegi ñu seguma waaw te juróom benn at lañ ma fi jëlee keroog ba ñu ma fi bàyyee ko dama ba léegi du ma ko fàtte benn waxambaane wu man welo wuñ la wax Saalifu Njaay ba jamono boobu mu ngi xam doole ñu takk suma paano bi bi paano weñ ñu takk paan ba dugal ma ca paan ba takk wela ba Saalifu Njaay da ko dawal jëm daaru su ma yaay xenu hëmb dox topp suñ ko may jàngi daaru loolu moom ba léegi maa ngi koy mu mel nii maa ngi koy fekkee su ma Saalifu Njaay da dawal welo bi ma dugg ca paan ba ñu takk ba mu dëgër paan ay weñ su ma yaay takk bagaasam ñu ne ko yóbbu ko daaru mu jàngi ndax kii dox la takk boo ko yóbboo ta demoo man naa am dangay dem ba miin nga bàyyi ko fa ñëw su ma yaay yóbbu ma ma ci kër ma kër nijaay ma dalee fa baasin mi mara ba na fa bàyyee ko ba léegi yàlla dogal na ma ne ko baa ngi si man ci àll bi kon nag ñu gërëm ñu nga xam ne ñoo taxawal lépp ci barab bi ba leel man fi mu nekk ak ñi fi nekkoon itam bañ mën a nekk ci àll bi ba indi dara ak itam biñ ko utee itam ñu gërëmee leen njaboot gi yëpp ñëw ci ñun ñu jàngal leen ko ñu nang koy tasaare frais daara nekk fa ñu ngi gërëm itam loolu ndax mënoon na ngay dem xuti ko feneen waaye li ñu ci neex mbooleem su ma doomee mag yeeg su ma doomee rakk yi ak doomee fooy bi ñu ma jàkkali nii ñëpp baa jàngal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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم قل إن فضل من الله يؤتي من يشاء والله واسع وعلم يقتسم برحمته من يشاء والله واسع الأسيم اللهم إني أسألك بشر اسمك اللهم إني أسألك بشر اسمك اللهم إني أسألك بشر اسمك الحسيم الأقسام وبشر اسمك المكتون المخصون سمي سلامة من جميع ما قلفت وإيسى على جميع ما بقصني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسيء قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين